massa massa ñu toogati ñaari fan ñu jël benn waay def ko star xuwaan xuwaan xuwaan non xuwaan non xuwaan xuwaan yeneen yàlla xuwaan ñëw na ay waay xuwaan waay xuwaan lañ doon xaar xuwaan xuwaan xuwaan xuwaan mel ni ku xuuxaan ana la Ano Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, ano Juan, a ngi conférence Juan nee napp na Macky Sall fekk Juan ñoo gën a tàng fuuf lañ def Juan mënu ko def ñoom ñëpp toog Juan Juan sañu sañu avocat ñu jël leen ci pot pot waasu day jàpp Juan Juan a ngi ñëw ah Juan waaye ñuy sauvé Juan ano Juan fàtte nañ Juan Juan amatu fi xoolaan xoolaan la xoolaan xoolaan nañ ko ca xaj bracelet bracelet bracelet takk leen takk ay ayca ayca ayca leen bracelet ana fas yi takk leen bracelet bracelet bracelet mu ne ni bracelet xoolaan dem na bracelet yaa ko tul de léegi bracelet jeex garsa <laughs> garsa massa massa xoolaan xoolaan bracelet bracelet suba nag ñu <laughs> bracelet ginnaaw suba ñu xoolal mbaxana mbaxana mbaxana tiset tiset tiset casquette Macky yow boo koy laal li dee Macky Sall Sonko boo ko dee de ñu nga fi fekk yow ñun dañu tàng dañuy mer dañuy lakk dañuy bax dañuy bax waxi nguux nguux jaruñu seen wax jaru doo sa doom de xuuxalaate wax au moment où ñuy jàpp seen doom yi di dóor ci kaso yi jeex nañ tàkk kenn Dakaaru Njaay Jal Jóob kenn kër yëpp euh, euh, ñëpp ñu ngi ci kaso yi ñëpp cinq cent personnes la Macky Sall dóor ci kaso yi xawaan <laughs> moom xanaa xawaan daa dee ana xawaan da ngeen bàyyi xawaan ko ci suuf ana xawaan <laughs> ana xawaan ana xawaan ana seen yàlla yàlla xawaan kii waroon ñëw sauver la anam <laughs> xuwaat nañu ñëw laaj ñun ay sénégalais lañ fii la ñu fekk fii fii ñun fii lañ juddoo maa ngi fi ci sénégalais yi neen xuwaat mu laaj ñu ñun ñu wax ko ñu wax ko ñun ñun suñu peuple nu ñu mel. ñoo xam ne ñoo téye Ousmane Sonko ay avocat junni avocat ñoo teg Ousmane Sonko ba fu mu toll nii xuwaan moo xëy ñu xëy nag bëgg bëgg effacer avocat Ousmane Sonko yi nga xam ne lu ne daj nañ ko ndax xuwaan. <coughs> bug fee def Juan Star moo tax Juan bu muy lappi lappi laa ko de hey Juan Juan gars yi nee bu ñu la yëkkati ci kaw plus ñu lay ci kaw plus ñu lay bàyyi parce que yàgg-yàgg dañ lay bàyyi moom mbëpp ngay def ci suuf moom bu ñuy tóoj Juan di naaw di fay fay ñuy teew tóoj Juan di fay fay dañ ko yëgal ba asamaan na ko war a bàyyi Juan nee na war a seey Juan seey na fu mu kenn déggutul Juan munu fee dugg munu dem ko mbapp nañ Juan pare nañ ña ngay keneen dangay lijjanti keneen léegi muwaan ñëw muwaan a ngi ñëw eh, am na beneen bi ñuy lijjanti xuwaan na dee muwaan léegi mu ñëw muwaan muwaan muwaan muwaan ñëw na muwaan ay laay la la kii moom mooy yëngal jamono muwaan a ngi nii <laughs> au moment où Macky Sall moom mi ngi def ay mbir yu salte yu musul am ci kaw suuf lu musul am ci kaw suuf la Macky Sall di def barke alxuraan peuple peuple peuple peuple li leen Macky Sall di def man musu koo gis booy Macky Sall ñëw moom 4 avril am la doon lijjanti Macky Sall ab vrai doomi xaram la dama woor nag daa vrai doomi xaram mooy Macky Sall moom 4 avril la doon réglé quoi nee na waaye ba ma pare sama 4 avril soo seen sonko bi xaaral ma defar sama 4 avril rek mun naxasaale 4 ba mu pare retourné waat nag ne kaay ma nag noqu leen nag vrai doomi xaram mooy Macky Sall billahi nit bu bon ak moo ngi noonu nit bu bon nit bu bon a bon a bon bon mun na sonko di wax na lu ak dëgg nit bu nit bu gën a nit sax Macky Sall nitu safara la safara matt safara la matt safara Macky Sall bokk ak moom sax safara nga jëm ànd ak moom sax safara nga jëm du nit du dara du nix Macky Sall moom négocier na 4 avril am yow nga jël nit yóbbu ko def sa procès condamné ko mu am droit def appel ci un mois yow moins de un mois yow nga def sa appel yow sa procureur def appel Mame Mbaye ñaa def appel nga bëgg leen juger ci moins de un mois musul am ci kaw suuf ça n'a jamais existé c'est seul Sénégal mooy terre boo xam terre maudite terre maudite bu yàlla bind sàkk ko mu maudite ñu fa mun a def lu mel noonu même Sodoma Gomor sax loolu amu fa ci terre boobu noonu Sodoma Gomor sax lii amu fa c'est-à-dire justice ñëw taxaw ñu condamné am nit mu war a dem moom ñu may ko un mois un mois lañ ko may trente jours pour mu def appel moom moom ci boppam moom mi ñu condamné moom defu ko ko de ñële ñu war a def ab procureur ci boppam procureur ci boppam def appel c'est inadmissible procureur dañoo yeb sénégalais senegal parce que sénégal dañoo amul fulla lii mënoon nañ ko lijjanti bu yàgg amuñu fulla parce que alxuraan sénégalais am ñoo gën a ñàkk fu la moo gën a ñàkk fu la xeet xeet xeet Afrique ba mu sax Afrique ba mu daj sénégalais fi xeet bu gën a ñàkk fayda la lam rek la amul fulla amul fayda ci boppam lu dañ koy def jàmm du dara ku ko yërëm rek yàlla nga xool mais sénégalais du dara sonoma gomoor sax loolu amu fa yow nga condamné nit un mois nga war moom mu def appel mu xool ba xam war na def appel déjà mu feebar moom mu feebar nga pomp ko mu feebar mu nekk hôpital feebar yow nga dem def procès bi te mu am moom mu am ay jours yu ñu ko jox pour mu reposer wu yow nga forcé def procès bi loolu rek Sénégal waruñu ko nangu ñoo xam ne dara ñu condamné ko encore ci procès bi boo xam ne moom dafa feebar moom. léegi au lieu ñu may ko moom mu mu xool boo xam ne def appel defagul appel mu nekk ci faju ñoom ñu ñëw ñoom procureur bi am fitu taxaw ci réew ma ne man maay def appel sax defal boppam appel ñu waxati kii nga xam ne nee na dañ koo tooñ nga xam ne suba ak ngoon maam bay ñaar suba ak ngoon day saaga Sonko moom tam def appel léegi au lieu ñu respecter un mois yi sax déedéet ñu ne ñoom balaa weeru koor bi dañ koy dañuy pare ci weeru koor bi dañ koy jugé jugement bi du génn weeru koor bi musul am appel bu gaawee nii musul am moins de un mois jugé def appel possible c'est pas possible loolu bu ko sénégalais yi seetaanee c'est parce que loolu problème mu sénégalais la problème mu sénégalais yi la ñoom ñoo amul fulla amuñu fayda ci seen bopp mais bu ñu amoon fulla des fois da nga naan waxal ñii wax est que mérité nañ sax ku leen di waxal peuple yëpp ci seen bopp libéré wu peuple sénégalais bi mel ni jaam Mali libéré wu nañ depuis tarfa taw ay ni def Naandertal la Mali libéré wu Burkina libéré wu ay Guinée libéré Sénégal toog ñu teg ndayam tànk mu toog di di jooy di jooy rek di jooy rek teewu noppi di jooy rek ñu ñu ngay bann baraj di ko bann baraj soo mu a soo mën a gassa gassa ginnaaw soo mën a massa massa ginnaawaat mu ñëw ne xuwaan ginnaawaat soo mu ñëw ne bracelet ginnaawaat soo mu ñëw ne caq ginnaawaat soo mu ñëw ne ndomba baat leen xool di leen yërëm au moment où seen ñu leen wër ñëpp libéré wu nañ en un coup ñoom mënuñu ko ñu toog fu ñu toog Macky Sall di def lu musul am di jàpp ay nit di tëj fu ko teg fan la ko teg fan la Macky Sall jàpp nday nit yi di ni muy tëjee nii nit nii di jël ay vidéo yàgg di ko teg jàpp ay nit di leen tëj ci ay kaso ay Assane Diouf jàpp ba pare lu muy c'est Sénégal mu loi moo fa amul mais ay nit yi ngay jàpp ay retour de parquet quatre fois ngay def ay nit ay retour de parquet amul ci euh, amul amul ci procédure pénale amul ci code pénal retour de park yi ñuy def noonu jàpp dañ lay xoox xooxloo xooxloo xooxloo xooxloo toroxal la ba nga ne tot ñu doog la dóor ci kaso yi noonu lañ defoon fii nit dof bàyyi ko nu mu dee dee dee une semaine une semaine ci giri doo tëdd doo toog doo naan doo lekk lu baax giri sànni la ci giri xasoo xun di la jël rek di mënate di yóbbu ci tribunal bi ñu ne ah ana juge bi noo nekk fi delloo leen ko kaso delloo leen ko giri ba téye la fa nga toog une semaine yoo nalawut fooy nalawee wala yéen xamu leen giri dër la dër fooy nalawee génn la sa kaw lal yóbbu la ci dër bàyyi la fa une semaine retour de parquet di la dugal ci oto di la yóbbu tribunal di la indi munata la yóbbu la tribunal xool gis gisuñu juge ba ñu delloo la nga nekk ci karo yi di jóg ko daanu di jëkk ko une semaine retour de parquet ñu naan quatre fois loolu lañ nekk di def ba la xoox ba dootoo bu ne la kuy sa yàlla sax nga ne Macky Sall ñu doog laa jël sànni la ci kaso yi ne au suivant jël Assane Diouf fekk ko muy liggéey sol tenue mécanicien tilim woor ñu jël ko ne ko danget yóbbu boobu ba léegi Assane Diouf mi ngi mi ngi ci giri bi ba léegi mi ngi ci giri dama ko kasare mi ngi ci giri bi ñu ngi koy jàpp yóbbu indiwaat dugal giri maanaam depuis bu ñu jàppee Assane Diouf ba léegi nalaw te réew réew maa ngi nii toog ñu ne ana les droits de l'homme ana les sénégalais ana les ñoom ñëpp a ngi toog gars yi xoolal lijjantiwuñ ko ñu ngi xool tàndarma bu mu yëy tàndarma bu ñu yëy bu ñu ci teg mburu meew mburu ak sokolaa mburu ak bëri ne alhamdulilah kenn jërëjëfe Serigne Touba kenn jërëjëfe Alaaji Malick kenn jërëjëfe Baye Niass kenn jërëjëfe Limaamu Laay ñu jital seen koll di xaar golo gu ñëw di leen fen nag ñu fooyee la nag jàpp ci say jàpp ci see ñaari lang lang di di di di ci foo waaye bu ñu ndogoo rek nga xam ne ndogu nañ bu ñu ndogoo rek coow li bari appel yi ko euh, euh, ñu ñuy wër ñuy wër golo bu ñu sànni benn banaana foo moom voilà ñu leen dàq duul nag ñoo toog wër leen nag ñu wër leen ñu man lu ma laay wëru sénégalais yi bu la ci dàq fen nga ne ma man man c'est pas fit fit bu ñu am man man moom bu ma ko amoon heure bi maa ngi deux milliards de followers fen dañuy toog di imaginer <laughs> maa leen di information bu bees quoi Amadou Ba incha allah Macky Sall da koy waaj a dàq Idrissa Seck lay def premier ministre léegi léegi après moom lay puusal xajal ko ñaax.